intérêt ci ibbiwaatu waxtaan. donc est-ce que am ngeen intéret ci ibbiwaatu waxtaan boo xam ne mën na aboutir sur la possibilité d'une candidature de Ousmane Sonko. waaw mais mais mais Maïmouna fii nit rey na fi ju rey nañ fi juge un juge constitutionnel ñu ñu wax ne ko rey en tout cas ñu ñu juré jugé coupable. nit voté loi d'amnistie libéré leen te ñu ñu wax ne ko rey parti bu ñu indexé ciblé ko terewu mu waxtaan ak du Diouf ñu def gouvernement bi nga may wax ni que diw diw diw diw diw jàpp nañ leen ñu ngi ci kaso bi am na ci ñu def sax tooñ mais état mën na leen a baal parce que ñun on entre sénégalais. ay jeunes mën nañ leen instrumentaliser manipuler leen ñu dem def loo xam ne waruñ koo def. mais pas compris le sens. waxuma waxuma de sang. ne. comprendre naa sa question. est di ngeen def loolu est-ce que est-ce que yéen na leen parce que aujourd'hui l'absence de Ousmane Sonko du processus. Euh, sa sa présence dana doon anéantir boo vos vos vos chances dañu wante. anéantir nga wax de. de waaw may mun a nag may mun a nag léeg-léeg da wax. <laughs> en tout cas bu Ousmane Sonko teewee seen wax jooju ngeen wax naan da ngeen di gagner l'élection au premier tour yaa ngi juum yaa ngi juum nag. parce que dama dama dama wax lu mel noonu. Eh. ñu soppi sama wax. <laughs> non ma ne bu Ousmane Sonko. man waa déglu rek bu Ousmane teewee moo tax ma yaa ngi juum. non bu Ousmane Sonko waa déglu rek yaa ngi juum. ah lu tax maa ngi juum. dama ci wax ñu soppi sama wax. <laughs> nañ ko soppee. gis nga waa opposition bi laa wax ne ñoo gën a bañ Ousmane Sonko génn. waaw te muy dëgg. bon pas tout le monde ah am na ñoo xam ne dégg nga leen. pas tout le monde aussi. <laughs> am ñoo xam ne dégg nga leen ci. ay mais pas tout publiquement nëbbuñu ko. man kañ waxuma waa opposition yëpp parce que ils sont plus de deux cents waaye am ñoo xam ne jàpp nañ ne c'est leur chance opposition bi laa wax ñooñu fi mu ne dëgg la loolu arrangé wu leen. arrangé wu leen yéen tamit. Euh, ñun nag ñun gëm nañu ne. les Sénégalais soxla nañ un homme d'État expérimenté soxla nañu un nom bu am expérience gouvernementale et alhamdulillah je suis moi heureux que mu am ñetti ancien premier ministre yoo xam ne dañu bokk ci joŋante bi. muy Aminata Touré Amadou Ba Mahammed Boun Abdallah Dionne. waaw. ak Idrissa Seck boo ko fàtte Idrissa Seck man ci opposition bi sax laa wax am na ñetti ancien premier ministre donc am nañu expérience d'état am nañu expérience gouvernementale ma yaakaar ne sénégalais ku leen woo ci fitna ne leen solution bi mooy fitna génne fitna kooku bés bu jëlee réew mi ci fitna la koy jël ci fitna la koy installé ci fitna la koy installé